Leewtoo TV ziar leen tey nag ci gaal laa toog yàgg laa àndal tey toog ci gaal tey Talla Ndiaye ñëwut yàgg maar yàgg gaal nag xanaa xel yi day dem muy fi ñëw fan la fii ci yoof ngir la samedi nag muy préparé wala dimas book digganteem ak Pape Thiam bu Géejawaay jëy production moo ko tëgg yàgg gaal gaa ngi nii xanaa ñu joow yàgg na géej gi yàgg boo defee di nga gis géej jaxaraa yaa ngi seen gaal gis nga gaal naa dellu ziar sanga bi. waaye sant bu wér. tey ñu fekk la fii sa dëkk Yoff. nga ànd ak sa rek caatu Yoff. mu war a bëgg dimanche loo koy. waaye moom kay yab na ko ba pare ñaan yàlla may ñu ndam rek. yàlla may ñu ndam lu rëy rek si kaw combat bi ñu jëm Pape Thiam. yàlla may ñu ndam si kawam moom tamit beneen mu amaat gaaw am beneen combat yàlla may ko ndam beneen jour waaw. ren dañoo seetlu nekk écurie Yoff affaire daa xaw a neex de. Yoff ren affaire xaw naa dox de <laughs> wax naa leen nga réunion nee naa leen bu ngeen boolee xool yi am ngeen loo xam ne benn écurie amu ko boo gis si àdduna côté yi lay wutee ndimbal waxuma la dara nag cosaan yi nekk fii nekkuñu feneen yaa ngi dégg bu ngeen boole seen xol yi ndam rek la ñu am. ba tey yaa ngi xaar amago adversaire. waaw amu adversaire mais maa ngi sant yàlla 4 ans xaw ma 5 ba léegi bëriwuma dugguma bureau kenn yàlla ak may suturaal gëj naa naan si ndoxum robinet bi ndox sama butéelu ndox laay naan yàlla ak may suturaal fandeegu ma quoi loolu sant yàlla la. combat barki démb gi seetaan nga ko bi amoon samedi. waaw seetaanu moo ko mais après dama génnoon mais seetaan naa ko si sama téléphone quoi si YouTube. noo ko gis. waaw nice nice. ñaar ñooñu loo wax ci ñoom. Ah, ñaar baña ñaar bañ a man moo tax ñoom ñaar yu bëre xaw ma ragal la xaw ma muxat la xaw ma yab seeni supporter la mais moom bañoon a bëre man moo tax ñoom ñaar ñu bëre loolu moom mën dama leen di pousse fële rek. seet ni mu mujjee yow xaaroon nga. non neexuma man niil moo ma gënal niil. pendre sama bopp si garab nii moo ma gënal niil quoi. ñoom ñaar nañ nii lu ñu def parce que Lac de Guiers na moo daan Boy Niang na moo daan. ah waaw waaw loolu mooy werante rek loolu même chose ak niil rek ku ñu jox victoire sax du saf suukar du saf xorom victoire bi moo la yëgal sa loxo moo gën a neex. yaa nga Boy Niang. man <laughs> man de man de man pare naa bu yàgg arbitre suuf rek laay xaar sama loxo bi day xasan day bëgg a dee waaw. Lac de Guiers. bañ a bëgg wax ma a lu ma am Lac ba ma daanee soo laa ko laajoon soo sim kañ laa ko daanoon di Balla Balla Gaye di bëre ak Baboy ma bëree tout quatrième combat xaw ma laa laajoon la dëgër de ba tey boobu bu sam samedi boobu wala dimanche boobu ma defaral ko ba tey maa ngi si maa la gën a kontaan bëggeeti waliyaanu aatey kuy waliyaan ma koy jaan nga ñu daan aturee naa aturee naa kuy doon maa ngi lay delloo bëggee sant bu baax alhamdulilah waaw neex na kay alhamdulilah neex na trop tey seen at ngeen ñëw di ko gunge si ci open presse am caatu yoon waaw caatu Yoff waaw di ko ñaanal suñu borom ndam rek parce que ndam la quoi Yoff soxla na ko kon donc ndam la war a doon incha allah rabi. parce que depuis boobu ba tey gisuñu la wala boobu man gisuñu la combat bi euh, Kéwoulo bi nga ko jëlee tur chaque jour dama doon dégg nga naan dama ko jël pour daan ko dama ko jël pour daan ko da nga yaakaaroon fii ko fàq pour ñu ko yoon la rek te dama nekkoon sama yoon di dem am ñaari tolof tolof ma weesu lool nekkaat si relancer ba kon donc. bu bëggee avancer il fallait ma daan ko loolu kese la woon te yàlla may na ma ndam si kawam alhamdulilah quoi. waaw uh-huh. combat bi nu mu yombe noonu xalaatu nga mu yombe noonu. waaw parce que xam naa lu may posé xam naa lu may jar xam naa talent bu ma am yàlla nag moo yor ndam moo may ndam sant naa ko bu baax. Uh-huh. dañu gis si biir bëri nga daw jël ko ci suuf tànkam li yàgg mu génn foofu nga yokkaat sa loxo ca kaw. waaw mooy comme ni ngeen ko waxee yéen ñaar rek dama ko aspiré mu ñëw dama ko use ma sàcc ko jàpp ko la ngaa moom bëree moom daan ko quoi.

non ñu ngi fii samay adversaire yow xam nga leen Lamine xam na leen lam est ñëpp xam nañ leen quoi donc nañ bëri man ak ñoom kat booy bambara war war ngeen a mën a bëri wala lamba bu neex la yeah bëgg naa ko bu ma amee keneen nit ku ko gën it bëgg naa ko bëgg naa ko yeah bëgg naa ko bu baax bon moom dégg naa muy wax naan ay euh, dootul geesu comme euh, faat ma laaj ka mu naan ay dootul geesu comme si ka dama raw bon lambañ suñu kanam quoi bon loolu la jàpp peut être raw la bon ni lamb moom ñuy jugé quoi daan naa ku ko daan moom daan na ku ma daan kon donc Pambaay moom mu daan Malaw Seras donc produit bi ma daan sax tey ji bon lamb la daal laa la baax na yeggal produit bi nga daan da nga bëgg wax ne moo gën a baax wala. moom bi may daan Pambaay Pambaay fi ma ko daane moo gën a baax fi ma Malaw Seras daane. yeah. kon moom fi mu daane Malaw Seras daa baaxul pour yow. bëgguma défendre si moom sax lamba la mu ngi si yoonam maa lamba booy bool di ngeen bëri. non booy bool moom làmba xajul suñu diggante quoi. tax bon parce que dañ d'ailleurs dañ bokk fu ñuy fréquenté bokk salle bu ñuy entraîné bon ah yu bari quoi yoo xam ne mooy loolu. di lance tamit comme bawol bawol bawol yi cooyoo si amoon bay bawol barke Cheikh bu Mouhamad Kunta ñu benn yoon man ak moom si combat bi jàppale ma si dara. ban coow ci am. naa ñu naan ay dama doon jàppale ay yooyu ñaari yoon sax lañ fekkante saalu kante xaw ma trois fois mais jàppale wu ma si dara dara dara sama làmba yaakaaruma si kenn ku dul yàlla. Double Moteur loo wax si moom. bu ñëwee baax na prouvé na. ah waaw. prouvé na bu ñëwee baax na. loolu lamb coow la. xam nga man man nii laa mel Babacar du ma du ma fekk lu logique ma naan ay nañ ma jox ay Modou Anta nañ ma jox ay ay neetax ay yooyu parce que ñooñ tam ni ma bëgg a demee noonu lañ bëgg demee mais ñëpp xam nañ ne yow ñu ngi ma fi tuddal ma bëreex ñoom logique la mais su ma leen tuddoon ñu ne moo jam yi non war naa am lu ko gën ñii toppa si ginnaaw mbëri chaque jour ñooy tardel quoi kenn du ma wax ku ma xool ma xam ne kii arrangé na dama koy jël bëri ak moom kontaan ci alhamdulillahi rabbil alamin ndam peace and love jaajëf grand